alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi arrahmani irrahim wala hawla wala quwata illa bika ya aliyu ya azim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafu qawli salli llahuma ala sayidil wujudi sayidil baraya fala shakka anna almustafa sayid albara wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi diin amma baadu ayuha almushaahiduuna alkiram fi télévision sunu label tv nuxayikum bi taxiyati lislaam taxiyatan mubaarakatan min indillahi tayiba wiya asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki janoog sunu télévision bii di sunu label tv ginnaaw bi nu santatee sunu boroom julli sëlmal ci sangu àdduna ak laaxira sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di jox sunu loxob xol di leen nuyu di leen ziyaara di leen baalooti xaq di leen ko baal di ñaan sunu boroom mi yor jàmm yor yërmande yor barke te kum ko defal nga ame ko yal na yàlla bokk nu ko defal man ak yéen bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jiital ci nuyoo beeg ziyaar yi kilifa diine yi ñaan sunu boroom yal na yàlla bàyyil nu leen fi nu yàgg fi lool yàgg gunge ba ca kanam nuyu waajur yi ñaan sunu boroom yal na yàlla guddal seen fan dolli seen wér ñaanal kilifa aada yi li réew mi am nga ba dénk leen yal na la defal leen tawféex ba nu mottali waaye jag leen nuyoo ki ziyaara soppe yeeg am di jàmm yi nga xam ni dañuy bége eh, seen télévision bii di sunu Label TV nga xam ni ci xolu Sénégal la nekk ñëpp ànd di ko bége waaye yal na la bokk nu bégal nun ñëpp bi jaahi Moustapha sallallahu alayhi wa ñaanal directeur. xaaju maxtaar silla yal na yàlla gën ko dëgëral yal na yàlla sàmmal nu ko aaral nu ko bàyyil nu ko sunu kanam mu yàgg fi lool waaye ziyaara bu baax madame silla ak personnel bi nga xam ni yëpp ñoo ne ci ginnaawam taxawu liggéey bi ba mu jekk ba rafet nii yàlla na yàlla rafetal seeni mbir yëpp eh, bu ko defee mbokk yi ñëwati nañ ànd teeg yéen ni ngeen ko miinee la ci bëccëg gune seen émission bi di jilsatu nabi di jataayu sayiduna muhammad wi sallallahu alayhi wa sallam mi ngeen di ànd ak ñun fii ci sunu télévision bi di Label TV sunu Label andil leen waxtaan wi ngeen koy ànd ak ñun bëccëg gu ne tabarfakalla waaye gis ngeen démb maag yéen ñu ngi àndoon tàqalikoo ci euh, sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ba mu leen waxee nii euh, yàlla de mbaax ci loxoom la ko teg moom rasulullah moo ko xam moo ko peese ba xam ni mu toll yonent bi ne woon ñu fukki melokaan la mag yéen ñu àndoon ci ba joxoon naa leen démb melokaan yi ci njëkk joxe woon naa bërki démb ak démb bu nekk ban mooy melokaan yi nga xam ni ku ko ame seedeel ni borom makarimal axlaax la mooy borom jikko yi tedd yi yonent bi ni yaqsimuha allahu liman araada bi saada maag yéen ñi àndoon ak man waxoon naa leen démb la yàlla nee na yonent bi nee na yàllaay jagleel jikko yooyu ku ko neex fukk la de ma joxoon la ñaar a des yow waaye fukk yooyu seyduna muhammad ne ndey ak baay mën nañ ko amee ah te doom du ko amee nag waaye bu mu tax nga defee ne doom du ko am de ankay ah doom sax mën na ko amee te ndey ak baay du ko am yonent bi ne yëgoo ni nit mën na koo am di kilifa te njaboot gamu njaboote duñ ko am waaye kaay ma wax la nit ay ampul waaye mën nañ koo am sax te moom du ko amee ñu ne ko nabi lu xew mu ne yëgoo leen ni yàllaay leen melokaan yooyu ku ko neex mu jiitaloon maag yéen sidqul xadiis wa sidqul baasi waaye wa itaau saailin mag yéen mbokk yi ñu ñëwaat ci ñetteel bi te mooy wal mukaafaatu bi sanaa'i mooy lan mbokk yi mooy ñetteelu jikko bi yonent bi wax ni ku ko amee nee ko ci makaarimal axlaaqi tànn nga ci ci ajikko ya yore ca mooy nit koo xam ni kuy kuy jëflanteeg ñi mu yilif la ci jëflante wu jekk mooy mu kaafa bi sanaa'i mooy jëflanteeg ku lay liggéeyal jëflante wu jekk mbokk yi a jikko wu tedd la yombul de ko yàlla jagleel nel jagleel na ma ci makaarimal axlaaq jikko ye tedd yi yàllay séddee sédd na ma ci te lan ku ma yilif nu ànd maag yow ci liggéey lu ma war ci yow maa nga ca mooy mukaafa atu bi sanaa mooy koo xam ni ku mu yilif li ko war sa diggante yaag moom du ca bàyyi dara donte moo la yilif sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëggal ko ci wenn xadis wu mun a wax nii yonent bi dafa wax ne aatu ajira ajrahu qabla an yajfa araqahu yonent bi danaa wax naan kilay lay kilay ki ñaqal jox ko li ngeen ñaar balaa ñaqam di fenn mbokk yi tey ñaata nit ñooy takk ay banderole ne ci di kaas nga wax leen ñu ne dañ maa yoreel dama doon liggéeyal aw nit ñu liggéeyal ko ay weer a ngi nii mu yorel nu looloo ñu tax a génn takk ay banderole nañu fay allahu akbar mbokk yi yonent bi de nee na bokk na ci jikko yu tedd yi nga xam ni dañ ko war a amee ci pénc ba nga xam ne ku ko amee dañ ko war a jiiñ ne am nga makaarimal axlaax yow de ci makaarimal axlaax yi nga bokk am na góor gu baax guñ koy dàkkantelee da ngay dégg ñaan naan la Baye Abdou Karim borom makaarimal axlaax mbokk yi dàkkantal la wu rëy de ah, dàkkantal wu rëy la mooy ko xam ne ku mu jëflanteel nga naw ko loolay makaarimal axlaax mbokk yi ku ñu ku jëflanteeg yow rek naw la war nañ laa woowee li ñuy woowee Baye Abdou Karim mooy diw borom makaarimal axlaax la ndax ku jëflanteeg moom naw ko Seyduna Muhammad ne dafa bokk ci jikko yooyu mu kaafaatu bi sanaa'i mooy li la warloog ña lay liggéeyal nga matal ko mbokk yi ma wax ni tey ñaata nit ñooy takk banderole ngir tuur seen ñàkk ciw dara ba pare nit ña yoreel leen alal bañ leen ko jox est-ce que loolu jaadu na mbokk yi loolu rafetul ci mpénc nit daal war nga yow miy liggéey defal sa kémtalaay kàttan ba bul yoreel ki ngay liggéey dara waaye yow it liggéeylu defal sa kémtalaay kàttan ba bul yoreel ñi ngay liggéeyloo dara mbokk yi kenn ku nekk respecté moroomam wala taakulu amwaalakum baynakum bil yi sunu borom ne maa ngi leen di ñaan bu leen dunde dunde gu jaaduwul te mooy lan naxante seen biir di lekk seen alal yow même ay employé maa ngi lay ñaan bu leen nax defal li la war sa digganteeg ñoom waaye yow mi tudd employé am patron bu lay liggéeyloo maa ngi lay ñaan bul nax sa patron defal àq ba war sa digganteeg moom wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil Omar bun Xataab radiyallahu anhu dafa jël benn waay bi mu nekkee amirul muminin teg ko ci mairie bi def ko monsieur le waa ji mu teg ci mairie bi bu nu xëyee lundi mardi mercredi du ñëw jeudi lay ñëw vendredi samedi dimanche ñu noppalu ko mu ñëwaatee lundi mardi mais mercredi duñ ko gis mu ñëw mboolem ku ne ci mairie bi remarqué na loolu ba affaire bi métti gaay yi moom moo yilif mairie bi te du ñëw par mercredi ba ñu ruumandaat loolu ci suuf yemuñu ca te dañuy gis weer wu dee ñu gis benn waajoo xam ni day ñëw ci mairie bi fayee ko enveloppe boo xam ne dañ ko koy jox te liggéeyul ci mairie bi loolu it métti gaay yi loolu waa mairie bi daje waxtaan seen biir ne nañu dem ci Omar bun Xataab amirul muminin wax ko ko ne ko diw mi ma teg ci mairie bi de lii lay def ci mairie bi ñu départ ñëw wax Omar bun Xataab li leen métti ca mairie ba mooy monsieur le maire de du liggéey si mercredi waaye monsieur le maire de am na ku mu wutal enveloppe di ko fay chaque weer fii muy jël seen enveloppe te liggéeyu fi Omar bun Xataab ne déet waaye diw ak ni ma ko xamee ci mbaax ak ni ma ko xamee ci njub daal ne wool leen ma ko ñu daw woowi ko monsieur le ñëw rek gàppro ci kanam Omar bul Xataab ñu ko amirul muminin la xew mu ne ko nettali ci làmmiñu boroom la gën a neexe wax leen dana leen métti ci monsieur le maire waa mairie bi wax ne ko Omar diw mii du liggéey par mercredi ba nga ko falee ba léegi mësuñu koo gis mercredi mu xëy si beneen bi mooy amal na fi ko xam ni mu ngi tudd diw chaque weer day ñëw jël sol Umar bun Xattaab ne ko diw dama la falee meer ndax loolu daf ci bokkoon mu ne ko déedéet Umar dégg naa seen kàddu mais danga may may manit ma wax lan a tax loolu mu ne ko lana tax mu ne ko Umar man yàlla dafa dogal mercredi rek lay am temps pour mën a fóot te man benn yére bii la ma yàlla jagleel ñoom ma laal ci keesu mairie bi un franc pour jënd beneen yére segam benn bii nag laa am mercredi ba mercredi laa koy fóot loo tax mercredi du ma xëy si sama liggéey yépp damay fexe bu mardee ma jaayante ko li ma war a liggéey mercredi yépp ma jaayante ko moo tax ma guddee wàcc mardi waaye Omar sama mercredi yooyu ma xëy siwul benn bu ci nekk 5000 la ba ma ko calculé muy 20000 francs 4 mercredi 20000 francs yooyu Omar moomu ma ko waruma koo lekk parce que liggéeyuma ko moom laa jël kooku ñuy séen su weer deewee mu ñëw ci mairie bi ñu jox ko enveloppe bu 20 000 francs benn njirim la te xam naa ni néew na doole ma ne man c'est que waruma lekk lii te sama payoor la moom de laa génne verse ko foofu chaque mercredi may verse 5000 foofu moom moomu la waa jooju di jël si chaque bu weer deewee gaaya kenn ku nekk xoolante Omar bun Xattaab ni leen diwle bi ma koy teg ci mairie bi man xam naa ni du ameel ak képp ku mu yor mbokk yi sayyiduna muhammad ne nit daal pour mu baax day fexe ba wal mukaafaatu bi yi day fexe ba ñi muy jëflanteel bu ñu ko jéppi ñi muy jëflanteel na matal digganteem ak ñoom ñi muy jëflanteel na dox li war ci digganteem ak ñoom mooy ñetteelu jikko wi nga xam ni dafa bokk ci makaarimal axlaax di jikko yu tedd yi mbokk yi euh, jikko yu tedd yooyu de ku ko dajale fukk yi may bëgg a nettali ku ci dajale mbaa nga am ca na nga ko gën a sàmm ku ca amul it nga ko wuti ak ca bokku de bi ñuy waxtaane mbokk yi te mooy respecté képp koy liggéeyal te mooy respecté képp koy liggéeyloo parce que ñaar ñeen ñoo fi ne ku ñuy liggéeyal la ak kuy liggéeylu ku ñuy liggéeyloo na yëg ni moom dafa am kilifa moo koy liggéeyloo war na fexe ba bu mu wor kilifaam ci li muy liggéey waaye kii liggéeylu it na yëg ni damaa am njaboot bu may liggéeyloo naa fexe ba bu ma leen lor ci li ma war sama digganteeg ñoom mbokk yi euh, mel na ni li ma dese ci waxtu bareetul waaye mën ak yéen tabarfakallaa noonu la ñuy àndee ci ba cëggu ne ñu ànd waxtaane ci jataayu sayduna muhammad wi sallallahu alayhi wa sallam di jilsatu nabi ana yan yan melokaan moom lañu ñu war a dundee pour suñu digganteek sunu boroom juboo am ci waaye pour suñu digganteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa déggoo am ci waaye it ñu mën a dundee ci société bi ba mën a jubóog jaami yàlla yi nga xam ni ñoom la yàlla booleel ci pénc mi ndax alxalqu kulluhum iyaalullahi jaam ñi ngeen seen ci pénc mi ñëpp njabootu yàlla lañ ak ku ñu doon ak fu mu doon ak fu mu jóge kon nag njabootu yàlla kenn wu ne war nga xam nan laay dundee ak ñoom mbokk yi maag yéen ñu ngi ci jataayu yonent bi waaye di waxtaane fukki jikko yi nga xamante nii mbooleem mbooleem ku ñu déggati ñu ne ko baax la dafa war a ngànnaayoo fukki jikko yi maag yéen sayduna muhammad a teg loxoom ci fukki jikko ya ne maa ko yore peese ko ba xam nu mu toll danaa ko joxe ba ñëpp xàmmee ko waaye fii lay xewee ci sunu label TV toppat leen ma suba man ak yéen ci ñeenteelu euh, jikko bi nga xam ni ci jikko yu tedd yooyu Seyduna Muhammad tuddee makaarimal axlaq la ñaan sunu borom yal na yàlla defal ñu dégg ak topp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gërëmaat nañ ñëpp santaat ñëpp tàllal loxo sunu borom ñaan ko moom mi am jàmm te fu mu ko def foofu bari jàmm yal na yàlla dotti ko ci réew mi dotti ko ci réew yi ñu wër waaye dotti ko ci mboolem réew mu jullit ne bi jaayi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ida aradtum salaamata al ardi fattabi'u muhammadan wa riwaayat al umami mbokk assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu